spectateurs yi nga xam ne nag ñoom ñoo ñuy teewlu Cheikh Tidiane. Mm, ay côté huit heures dix yooyu lay euh, doon nga gën ko yaatal euh, Cheikh Diop euh, xam naa ni mënoo taxaw ci les échos mais peut-être apulaay su ko mënee def rek di taxaw ci journal boobu dellu si ci coow li nga xamee ni depuis démb ba léegi ñu ngi koy dégg laaj mort muy coowal passeport diplomatique ak yenn ministres yi nga xamee ni hmm. euh, dañoo gis ni euh, dañu leen ko tere euh, pour ñu génn réew mi muy loo xamee ni dañu jàpp ni ca présidence de la république la jóge waaw bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax man awma ci ay éléments yu bëri pour firndeel lu nu mel li ma xam daal mooy hmm, kii di Adji Mbergane Kanouté nga xam ni c'est une parlementaire connue moom moo nettali histoire bi sur Facebook mais ci sama wàllu bopp woowu ma benn ministre boo xam ni benn ancien ministre boo xam ni woo naa ko mu euh, yëkkati ay kàddu daal di may confirmer loolu waaye dañuy jàpp wax rek euh, ni dañuy am bonne fois ci li Aly Mbergane Kanouté wax bu fekkee li mu wax am na pour man quand même bu doy waar la te on n'a pas besoin de ça euh, comme ni mu ko waxee les nouvelles autorités dañu am benn genre euh, dison dañu war a nekk gentleman par rapport ak euh, ñi fi nekkoon euh, bu ñi fi nekkoon amee droit am ay passeport diplomatique pour voyager seen fonction may leen ko lii war mooy ñu bàyyi leen ak ces passeport diplomatique la mais di ko nag wala muy am ay restriction ca aéroport pour man c'est l'image du Sénégal sax la ñuy gàkkal par rapport ak mode de fonctionnement bi mais pour man Euh, amaguma ci vraiment ay éléments yu valable yu leer yoo xam ni gis naa ay ancien ministre parce que moom parlementaire la mais moom dafa wax rek nii am na ay ancien ministre yoo xam ni euh, dund nañu loolu man bëggoon naa nag vraiment teg loxo ci ay ancien ministre laaj leen est-ce que dëgg-dëgg dañu bëgg voyager ñu téye leen je pense euh, war nañ ci def benn gëstu pour jéem a set voilà mbir yooyu nu mu demee mais lu ci mën a am mooy que ni y' a un devoir d'élégance mhm. y' a un devoir euh, de gentleman boo xam ni dafa war a am euh, ci les anciens ministres nga xam ni dafa am yenn fonction yi boo ko jotoon occupé dafa am lu warlook yow te pour man nit ñi dañu war di continuer di la jox cër boobu nga moom ah, mais Daouda yi mu ngi ko méngalee comme euh, privilège yi nga xam ne sa fonction moo la ko doon may soo demee ba nekkatoo ci fonction yooyu est-ce que jaaduwul tamit nga bàyyi privilège yooyu yëpp du ci mel ni voiture de fonction logement de fonction passeport diplomatique. Euh, d'accord na ak yow ah, noonu la noonu la war a demee bon malheureusement du temps de du président Macky Sall. Euh, daf ko étendroon ba génnoon benn décret bu nga xamante ne am na ñoo xamante ne dañ ciy profité même de delà des fonctions yu nga xamante ne dañ ko doon occupé danga nga doon gis ne étendroon nañ ko sax ba seeni soxna yu nga xamante ne amuñu woon benn benn fonction officielle loolu mooy li nga xamante ne moom moo nekk maintenant euh, parallélisme des formes man je me dis que su fekkee ne réellement nee nañ dañ ko bëgg a dindi et je considère man personnellement su fekkee ne damay wax nekk na lu nga xamante ne dañ ko war a dindi parce que comme ni nga waxee passeport diplomatique c'est quelque chose bu nga xamante waruñu ko banaliser. Hmm. passeport diplomatique dafa nekk ñu nga xamante ne dañuy liggéey liggéey bu nga xamante ne moo leen di permettre ñu jox leen passeport diplomatique pour que seen demlante ak seen dikkalante di diggante à l'extérieur mu mun leen faciliter liggéey bi nga xamante nañ koy def privilège la par rapport à une fonction bu nga xamante ne da nga koy occuper su fekkee ni dañ la jox véhicule de fonction ñu jox la logement de fonction jox la passeport diplomatique dans l'exercice de tes fonctions effectivement su fekkee ne dem nga ba nga xamante ne cessé nga fonction fonction boobu da ko war a delloo ña nga xamante ñoom ñooy les nouvelles autorité ñoom également ñu ko sinon da ngay jël ña nga xamante ay ancien la nga jox leen passeport diplomatique nga xamante ne ñu nouveau la nga jox leen passeport diplomatique étendre ko ci seen soxna et consort dafay dem lu nga xamante dañuy banaliser li ñuy woowee passeport diplomatique donc moi je considère que su fekkee ne réellement les nouvelles autorités loolu mooy seen option def ba nga xamante ne passeport diplomatique ña ko yellal kese ñoom ñoo ko war am am na acte bu nga xam war nañ ko defaat également mooy li may wax noonu paradigme des formes mooy le président Diomaye Faye pour annuler décret bi nga xamante ne le président Macky Sall jëloon na ko ba nga xamante moom moo doon jox privilège un certain nombre de personnes ñu nga xamante ne normalement war ñu koon am mais niveau au niveau de des autorités daal joxe ay pour que ñi nga xam ne am passeport diplomatique bu ñu dem bu boobaa dafay nekk lu wax ah, parce que quand boo demee ba nga ne lii dama koy restreindre dafay da ngay jël benn acte nga xamante ne moom mooy nekk la base base base légale bi nga xamante si dañ mën a sukkandiku pour def loolu. Mm-hmm. voilà euh, Chérif comme ni ko Daoud waxee il faut y mettre les euh, formes euh, suñ ko bëggee. réguler mais aussi euh, passeport diplomatique aussi dafa jàgg jur coow fii ci Sénégal te dañ leen di dégg ci yenn bërëb yoo xam ne sax ça va de delà euh, des autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi. waaw oh, et puis c'est pas chaque fois bu alternance amee coowal passeport diplomatique bi sax day judd waat mi doog jot ci nguur gi coow li bëri woon na ci ay kilifa yoo xamante ni ñoo nekkoon ci parti socialiste ñu nangu woon ko Macky Sall mi ba mu ñëwee. coow li si la gënoon a wullee ñaay parce que am na ay sëriñ. yu bari des chefs religieux yoo problème bi jógee waaw mu dem nangu passeport yi nangu ay oto et donc c' est pas nouveau te comme ni ngeen waxee aussi passeport diplomatique du ku nekk moo ko war a am. parce que ay privilège la yoo xamante ni ngir booy tukki yenn tracasseries yi doo ci jot bu dee diplomate nga wala ministre wala nga am yeneen kilifteef yi ci réew am na sax passeport de service ñoo xamante ni xëy na amun passeport di monde ma ngir booy tukki ñu bañ la laaj visa wala nangam bu Sénégal nag yàqu na yàqu goo xamante ni daanaka dem na ba image am xaw a doy waar fii ci Sénégal moo tax kuy dem Amérique même boo amee passeport diplôme ngay ministre da ngay wuti visa donc mhm. loolu on se demande même finalement ban njëriñ la nit ñi nag dañuy dem di ko wuti mais finalement même boo demoon am sa visa mais am visa aussi dem na ba loo xamante ni day lu jafe fii ci Sénégal donc je pense que c'est normal que ñu xoolaat situation bi ni mu demee ak kan moo ko war am ak kan moo war am parce que fii ay chinois faatu nañ fi ñu dem gis ñu am am ay passeport diplomatique Sénégal jamono ji am na ñoo xam ñu ñu jàpp ci ay ñoo xam ñu ngi woon ministère des affaires étrangères am ñoo xam ni ñu ngi woon ca fële nga xamante ni moom mooy ca palais ba ba y un ménage sax bu président bi yóbbu ci yoon voilà muy beneen cas xam sax nga dégg trafic xam am na ñoo xam da nga leen gis aussi ñoo xamante ni seen i coono lañ leen jox ay passeport diplomatique te war amul benn titre bu leen mën a may ñu jox lii indi am na benn décret bu mu génne woon c' était mars bi passé ngir indiwaat ay coppite ci li nga xamante ñoom ñooy acquéreur passeport bi le journal Vox Pop boobu a parlé c' était le mars donc presque six jours avant muy jox lenga yi ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye mooy décret loolu day indi déjà ay ay ay xii ak lëndëm lëndëm parce que boo nekkee ba war a dem di ay indi ay coppite ci ñi nga joxe passeport diplomatique loolu xëy na ki nga xamante ni moo moo fi wutu aussi bu ñëwee il faut que mu xam lan la fa wute c'est vrai que comme ni ko miin waxee les nouvelles autorités bu ñu bëggee aussi loolu il faut ñu abroger décret bi c'est le décret numéro 2024 843 modifiant l'article 1er du décret 90 934 du 27 août 1990 abrogeant et remplaçant l'article 12 du décret 78 2021 du 6 janvier 1978 portant description du passeport diplomatique ak de service mooy modalité décret bi wax na par exemple boo jëlee par exemple euh, ambassadeurs yi émérite les ambassadeurs émérites nee ñoom war nañoo am passeport diplomatique. Mhm. ambassadeurs yi nekk à retraite aussi wax na ko mooy l' article premier bi nga xam ne indi bu dee ci deuxième alinéa bi aussi membre bureau assemblée nationale ak leurs épouses mais bu njëkk dañ woon membre bureau bi ñoo waroon am bu loolu am na soxna si war na am parce que moom ci membre bureau assemblée nationale wala bokk muy aji mooy généraux ak seen i conjoint bu ne conjoint nag mooy seen soxna ak seen i borom kër am na tamit beneen moo xam mooy troisième alinéa bi peuvent également obtenir le passeport diplomatique les anciens chefs d'État les les anciens premiers ministres mooy chef de gouvernement ak les anciens ministres ak conjoints donc bu dee bu na ci loolu xëy na ñoom mën nañ ko waxtaanee passeport diplomatique tuddee seen bopp ay opérateur économique hmm. ab boutique sax amuñ ko fii Sénégal boo ñi ngi traîner ak moom fii Sénégal je pense que il y lieu quand de mettre de l'ordre ci ni nga xamante ni moom la ñu joxee les passeports diplomatiques fii Sénégal ba n'importe qui war a tëgg di ko jox parce que image du Sénégal hmm. moom façon Sénégal mën naa jox keneen koo xam sax du Sénégalais passeport diplomatique comme ni ñu koy gisee ci yeneen réew yi nga xamante xëy na ay homme politique lañ wala ay réfugiés ñoo xamante xëy na pour des raisons de sécurité moom moo tax te loolu c'est à la discrétion du président de la République coow li en tout cas yàgg na fi jur et on espère que xëy na loolu mais nag bu amee nañ ko teg ci yoon loo gis rek dafa am war a am légalité mm-hmm. boo ñëwee waroon nit ñi di respecté li nga xamante ni moom mooy yoon parce que ñoom ñi fi nekk ci nguur gi doon doon doon ñaawlu ay dérives yu fi nekkoon ci pouvoir bi mhm. waruñ fee nekk ci affaire u fayantoo na lépp tegu ci yoon dans la légalité et puis ñu respecté encore une fois image Sénégal nga koy respecté nag mooy passeport diplomatique yi du n'importe qui moo ko war a am voilà euh, Cheikh euh, ñu jeexal foofu c'est vrai que fayantoo warul am mais tamit élégance tamit baax na ci soo xam loo xamee ni yow euh, nguur gi joxatula ko privilège yooyu amatoo ko parce que soo ko bàyyee tamit euh, day gën a yombal mbir mi rek. ñun Sénégal amuñu habitude euh, li nga xam ne moom moo di démissionner wala boog lu ñu la joxoon ci jamono yi nga xam ne moom nga nekkoon fonction boo paree nga delloo ko loolu euh, foog naa ne Cheikh Tidiane donc depuis belle lurette amaana ñu ñu koy nemmeeku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def fii ci réew mi bariwul mais bu fekkee dañ la jox loo xamante nii la ngay liggéey wala taxawaay bi nga xam ne moo taxoon ñu jox la ko bu fekkee euh, nekkatoo ko Cheikh euh, je pense parce que <coughs> hmm. euh, war nga mën a di jëfandikoo privilège yooyu noonu mbirum passeport diplomatique yi je pense que ni ñu ci def nii loolu moom mooy li war parce que c'est à l'image du pays donc war nañ mën a indi ay leeral bu baax a baax c'est pas la première fois nga dégg mbirum passeport diplomatique ak yeneen yéen yu ni xeetoo da ngay gis koo xamante ni euh, peut-être bokkul ci gouvernement amulul benn njëriñ Sénégal am li nga xam ne moom moo di euh, passeport euh, diplomatique sëgëm actuellement yooyu tuñu ko donc amul benn représentation boo xamante ni peut-être nguur gi fi nekk dina leen yoon yónni ñu dem doxi ko wala soit dem teewal fa réew Sénégal donc je pense pas am intérêt wu donc garder ba tey li nga xam ne si si si si heureusement wax na ko nee na elle est toujours en en en toujours parlementaire donc loolu la wax ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, journal bi mais je pense que bu fekkee par exemple Chérif donc li taxoon ñu jox la passeport diplomatique bi yow nekkatoo ko gisuma njëriñu ngay war a mën a euh, di di di di di di yor passeport diplomatique ba tey très mhm. franchement c'est mon avis Euh, ci base légale yi nga xam ne moom la moo tax ñu jox la ko nekkatoo ci loolu donc joxel passeport bi. voilà euh, merci merci trafic de passeport diplomatique yi amoon. Hmm. ak euh, yenn député yi. waaw Chérif mi ngi ko doon ak également su le régime de Diouf. il y avait des chinois yu ñu trouvé ci à la Seine ñu yor ay passeport euh, diplomatique fekk ñu rayoon leen yooyu mm. yëpp voilà ça participe un peu à dénaturer un peu la nature euh, de du passeport diplomatique ah. donc yooyu waruñu la ko jox ah, problème la Sénégal euh, passeport diplomatique yooyu peut-être que dinañ ci def ay jéego euh, ba euh, yëf yi a jaar ci yoon dañuy wéyal info matin ak seen rubrique un jour au Sénégal un jour dans le monde alors euh, Abdoulaye un jour au Sénégal un jour dans le monde